kon nag gars yi nañ leen demaat nag ci loo xam ne li ay woy la woy yi nag ndaamalo séeréer olof bi da ko woy séeréer bi ñëw ne dana ko woy pël bi dikk ne dana woy ndaamaloo siré bi moom it dikk ne dina woy ndaamaloo kon nag daal raas yëpp a ca daje rek la ñuy déglu njaago ba ak ñëpp a nga ca bombardé rek mu fees olof bee njëkk way rek nañ leen déglu moom ak ndaama loo sirem e way ndaama loo sire ku ci xam sa ndey baa nga xam sa baay saraxule bi contre ko mën nga noppi dafa la nanga danga ko way ndaama loo sire xaaral nga déglu maa la gën a neex a baatiwaat waaye wayal duñ ko xëccoo ma loo sire ku ci xamu sa ndey wala nga xamu sa baay si nga war a rew nga xam ko laa wax géwél baay tegale ma sagale ñu la wax ndaama loo sire ay wa soo ko xamul tan wala nga xamul ab waaye soo ko war a rew di nga ko xam soo ko war a rew di nga ko xam waa nda am lu siir ay waa waaye defal nag noonu kenn du ko waaye nda am loo siir man pol piir laa diwaan nda am loo siir ku ci kam ndey noon wala nga kam sa baay si nga war a rew kam soo war sa rew noon kam nda am loo siir ay waay nda am loo siir nda am loo siir nda am loo siir nda am loo siir nda am

kon nag gaa yi ñu yeggale rek woy ndaamaloo ba tey kon nag naar bi it moom it nee na walanteer na day woy ndaamaloo siré kon nag nañ leen déglu naar bi moom it balaa ñoo dem ci naar bi sax nañ leen jox séeréer ba pare moom it nee na day ndaamaloo yo woy ndaamaloo yo ndaamaloo siré মুনেতে মেগালা পায় অন্য ঠোলাই মা মুজাজোর ও চালের কারে বলা করে বউন বাজুর দামালো দামালো দামালো জিরে বুবে কেনে দিয়ে গা খাম সান্দে ওয়ালা নাঙ্গুলো কাম কুসা ফেরলাম দামালো জিরে বোহামে সান্দে জোয়ারে রে ওখান কো জোয়ারে রে ওখান করে ওই দামালো জিরে দামালো দামালো দামালো জিরে দামালো জিরে মান moto jango ginal bet ko moto tinga to tampi ko moto ji ah kon nag séeréer def na wàllam ci ndaamaloo si ne xamaguñu ku dàqale waaye tukulóor it dina ndaamaloo ah bon damaa ko boole ak noonu kalam boo kaw na bi dinaa ko kalam ba noppi ma door a ndaamaloo noonu yow rek la ñuy déglu xalamal Kunyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng kunyeng api nyeng api nyeng api nyeng yeri ma on dama no sire non so kamye sende non wala denga kam so bay non singa wara re non denko kam non so warta rew non denko kam non dama lo ya pani dama lo sire ko dama lo dama lo sire ko dama lo dama lo sire ko dama lo dama lo sire ah kon nag tukulóor ba moom it dem na ci ndaamaloo ci de yaa ngi gën a neex nag mu ngi takkar naase déglu leen toujours yàpp xaj bu seddee soof waaye ndéem gaa nga ca dañ koy lekk kon nag aywa naar baa nga ca koy ndaamaloo ci rey سفكنا دينا خمس دي ولا خمس باي سونغ ورا يو خم غير كونك سكو وردر يو خم غير اي واي دا واي اي واي سير دا واي سير واي سامري سير سامري سير يا سامري سير سامري سير يا سامري سير سو ورر يو دينا خمس ورر يو سامدينغ خم مو كي كات مو مانا جوي